بسم الله حمدا لمن أرسل خير مرسل بخير أمة لخير الملل وأفضل الصلاة والسلام على لباب صفوة الأنام وآله أبنان دوحة الشرف وصحبه وتابعين نعم السلف الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله بقي لنا جامو ci silsila bi nga موي دولة الخلافة العباسية xilaafatul abbasiyatu ñu toll ci démb nag ñoo ngi taxawoon fi nga xam ne fii la Abdullahi al di juróom-ñaareelu xalifa ci dawlatul abbasiya léegi nag mu war a euh, joxe nguur gi war a bàttali ci gannaawam ne dafa ko bëgg a bàttalee Ali yi ki ñu doon dàkkale Ali Arda ibnu Moussa al ibnu Jaafaru Sadiq lii nag bi mu amee waxoon naa sa jotaay yi la passé dafa indi balbala bu ci dawlatul abbasiya léegi nag waa Baxdaad jóg képp ku bokk ci banu abbas ñépp jóg daal di jàmmaarloo ak Ma'mun ne moom waxuñu woon lii daf ñoo war ndax Ma'mun léegi jël na xilaafa gi ne daf koy bàyyee waa kër Ali ibn Abi Talib euh, moo tax mu daal bind dénkaane daal di ko jox ne Ali moo koy wuutu di doomi wax naa leen Moussa al-Kazim ibn Jaafar as-Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn al-Husayni ash-Shahid ibn Ali ibn Abi Talib dafa wax ne an yakuna waliya al adi min ba'dihi wa sammahu ar-Rida kon al-Ma'mun moko ko ar-Rida mom lañ doon wax ar Rida mu ne bi ñu ko laajee yow lan moo tax nga tànn Ali mi wuuteeg li ñi la jiitu daan def ndax dawlatul abbasiya la ñu wax maanaam bannu abbas waa doomi kër abbas ibni abdul muttalib ñoom dong ñoo war a toog moom mu ne man dama seet dama seet ci waa kër abbas ak waa kër ali ibni abi talib ahli bayti nabi xool naa ci waa kër yonantu wa laysa fii banil abbas amul kenn ku nekk ci bannu abbas misluhu kenn ku mel ni moom fii ilmihi ci xam-xamam moom aliyu rida wa yi ak ni mu ñoŋee ci diineem gusuma kenn yore ci ko yu mu yore nee na léegi rek loolu moo tax fa jaalahu ma def ko waliyu aadi yi mu nekk waliyul aad min baadi yi ci sama gannaaw kon moom nee na critères yi moo tax ma tànn ko waaye nag tànn gi mu ko tànn indi na xeex bu rëy ca bax ca xeex bi nag bi mu amee ki nga xam ne mooy alfadlu ibnu sahl nee nañu daf ko doon bu nëbbu almamun maanaam leeralu ko ci yu bëri mamun moom yéex naa xam ne réewam mi mi ngi toj àdduna baa ngi toj baax daal ñi ngay mbëkkante bar dem na ba maanaam Basra Kuufa ba ca Madina fépp ngay mbëkkante ndax li mamun def te moom yëgu ci dara léegi nag ci loolu lañ koy yootal benn xibaar ne ko ah yow Baxdaad mais Ali Rida mii sax moo ko ko wax ne ko Baxdaad ma ngay toj mu ne ah lu xew ñu ne ko fipp nañu summi nañu jaayante bi ñu jaayante woon ak yow jaayante nañu ak Ibrahim Ibrahim moom waxoon naa fi nga xam ne foofu la mujj ak Mahmoud léegi nag bi mu ne waw lu tax sama ministre ba nekk foofu waali ba nekk Bagdad lu tax yëgalu ma ko ñu ne ah moom daal mbir xew na de Ali Aliyu Rida ne ko bokk na ci sabab yooyu sax man mii nga xam ne man nga def pour ma war laa uutu pour boo fi jógee ñoom loolu neexu leen ah coow la bari na de léegi Maamun jógee na foofu war a jëm Bagdad ci yoon bu sore sori nag léegi mu woo ñeent ci ay soldaaram pour am confirmation ñooña jox ko confirmation yu leer ba mu woo ki nga xam ne mooy alfadlu ibnu sahl ba moom ci yoon boobu sax ci la deewee mbokk yi da ngeen gis ne xeex yi daanaka ñi taxaw def seen doole tuur seen alal ak seen deret ba nguur taxaw daanaka ñoom seen bakkan ñoo ciy desaat maanaam ñoom la buur bi di njëkk a doy na leen misaal yu bëree bëree bëree bëri doy na leen Ali ca jamono as-Safa doy na leen abu muslim alxurasaani ci haaroo ca abu jaafaril mansour maanaam loolu ay am la yoo xam ne xottab lakk du ko jeexal ñi taxaw doon chef de guerre ba gouvernement bi taxaw bu buur ñëwee ñooñu lay jàmmaar ko waaye alfadlu ibnu sahl mi nga xam ne keroog ba Harouna Rachid genne àdduna soldaar yi nara wàññeeku dem fële ca Bagdad fekk al amin ba Mamoun ne dafay jël ñaari téeméeri soldat pour ñu dabi leen mi moo ne ko déedéet bu ko def fii ñu toll nii du doole nañ jël sunu xel nañ jëfandikoo sunu xel boo defee doole ma Maamun daf lay gañe maanaam moom moo lal ay pexeem def kéemtalaay kàttanam ba nguur gi taxaw ba Maamun jot si waaye gis nga moom fii nii ci lañ ko nar a ndax bi nga xam ne Maamun léegi jëm na Baxdaad pour régler ci problème boobu parce que léegi coow li bëri na mi ngi ànd nag ak Ali yi mii nga xam ne mooy juróom-ñetteelu xalifa ci chia yi chia yi ci seen njort ñoom dañu ne dafa am fukki nit ak ñaar yoo xam ne ay maasum lañu min baadi nabi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag xaw xam ngeen nag xawlul baatil loolu laa yesi wala la waaye dañ leen ko wax rek pour ngëm-ngëmu chia yi ne dafa am léegi nag Aliyu Rida mi kenn la ci ñoom bi euh, Maamun di ñëw moom la àndal ak beneen doomam ànd tamit ak soldaar yi nga xam ne moom la buur di àndal buy jóg léegi nag fii am nañu wax ne Maamun lan moo tax moo mu tànn Aliyu Rida te moom ci waa kër Ali ibn Abi Talib la bokk te nguur gi waa a Abbas ñoo ko moom ñii ne Maamun daf koo def pour maanaam fay réglé maanaam fay coow li ndax waa kër àll ngalam laj am ñu ci génn oote seen nguuru bopp xeex bi bëri nit ñu bëree bëri dee ci ba gis ngeen ca jamono Abu Jaafaril Mansour ilaa yawmina haza ci almamun nit waa kër Ali ibn Abi Talib daanaka ñaar ñetti weer yu jot am ku génn oote dawla boppam xeex amati ñu rey ci doomi yonentu yi ñu bëree bëree bëri ñu ne mamun dafa jël Aliyu Rida ne ko léegi yow laay fal pour maanaam bëgg ñëpp rek noppi mais bu demee ba sa kanam mu sensé ko am na ñu wax loolu. am na ñu ne déedéet li mu def nii dëgg la ci moom de ndax li koy firndeel mooy dafa jël doomam bu jigéen may ko muy ummu ummu moom la jël may ko Aliou Rida ñu ne loolu nag kon day wane ne ba noppi jëlaat beneen doomam umul Fadl may ko doomi Ali ñu ne ah lii day wane ne ma moom lii mu wax dëgg la ci moom de. parce que bu dafa bu nekkutoon dëgg ndax mi ngi bëgg a préparer moom nguur ga bu demee ba ca kanam nguur gi mujj ci loxo ay sëtam ba léegi ndax jël na doomam yu jigéen dugal leen fale ñu ne ah kon loolu day wane ne kii li mu def dëgg la de am ñu wax ne loolu du dëgg politique la. léegi bi ñu demee ba ci yoon ba nag mbokk yi foofu la Aliyu Radaan mi génnee àdduna moom jotut a yegg Baxdaad ndax dafa lekk bu bëree bari dadi di eh, génn aduna génn àddunaam gi tamit maanaam génn aduna gu gaaw a gaaw a gaaw génn aduna gi wax yu bëree bëri moo ci am ndax bi ñu demee ba tolloog fi ñu suuloon Haaruna Rasid foofu la génnee aduna léegi nag am nañu wax ne Ma'mun ci boppam moo ko moo ko posone parce que moom dafa bëggoon resin ba ñëpp xam ko nee nañu Ma'mun jël def ko ci resin bi jox ko pour mu génn aduna am na ñeneen ñu ko weddi ñu ne déet Maamun defu ko de ndax li firnde loolu mooy bi Ali Rida génne àdduna ma Maamun nee nañu toog na ñetti fan maanaam lekkul naanu lu dul tuuti lay ñam ci ndox ba tooyal bëleem gi waaye du lekk du def dara pour méttitlu dee gi nga xam ne Ali Rida dee na ko ñu ne loolu day wane ne kon moom posone wu ko te bi bi loolu amee dafa bind leetar ministre am ba nekk uh, Iraq di Xasan ibnu Sahl daf ko bind leetar daal di koy euh, métadlu ak wax ko ne ko Aliyu da génn na àdduna ñu ne loolu tamit day wane ne moom posé wu ko boo bu ñu demee nag ci riwaaya chia yi ñoom dañu ne euh, Mamoun moo ko posane euh, mais même ci waa sunna net nettalikatu taarix yi ci waa sunna am na ñu wax ne Mamoun ci boppam moo ko posane kon am na ñu wax ne ma euh, Maamun moo ko posone am ñu ne ma Maamun posone wu ko waaye foofu daal ci yoon bi moom ci la génnee àdduna jotut a yegg daal léegi Maamun daal di foofu nag xeltey na ci maanaam bala daal am na foofu ñii ne Maamun ku ku demee nag ni ku demee ni euh, Ibnul Asir moom nee na déedéet haza qawlun baid jiddan nee na wax yi ñu naan mamoun moo ko posane nee na moom loolu d'accord ci maanaam ñu bëree bare bari ci nettali ko su taarix ci waa sunna nee na ñu abadan du mamoun moo ko posane mais am na nag ñeneen ñu wax ne fekk waa chia ci li ñu wax ne mamoun moo ko posane léegi nag mamoun bi mu génnee àdduna mu suul ko ci côté baayam ci côté Haruna Rashid ci wetam foofu la ko suul moom moo ko jullee denc ko door continuer nag wuti fële nga xam ne mooy Baxdaad bi loo bi mu bi mu génnee tamit dafa bind leetar yu gaaw yónnee Baxdaad ak si dëkk yëpp ne leen waaw léegi xanaa man ngeen a dal Yurida génn na àdduna xanaa coow li mën naa fay boobu dal leen génn na àdduna bi ñu ne ah, waaw leetar bii tamit tey na xel de leetar bi est ce que moom it du wane ne ah, maanaam kii dee rek mu bind leetar naan waaw léegi xanaa coow li mën naa fay mu mel ni moom daa yàkkamte woon mu dee moo tax daal foofu sikk sàkk am na ci waaye nag bi nisbati lii bu dee man euh, li ma njort mooy ma mun defu ko xam nga lu tax mooy doomam yi jël may leen te ku ne xam ne arab ak doomam bu jigéen loolu daal tax na euh, man gaw ma ne moom moo ko moo leen posane waaye fii tamit beneen taxaw seetlu da cee am ndax Euh, Ali Rida bu fekkee dañ ko jox raisin posone ko mu lekk ko génn àdduna maanaam loolu kon day wane ne euh, xamul xaybu xaybu sax kenn xamu ko kenn xamu ko ku dul lu dul yonent boo xam ne yàlla moo ko ci ñamal tuuti illa man irtada min ar-rusul lu xam ne yàllaa ko ñamal tuuti lu dul ku yàlla ñamal tuuti léegi bu fekke ne Ali Rida moom comme li ñuy wax maasum la nga xam ne du juum du jaawale ni ko chia yi gëmee waaw léegi ndax moom xamoon na ne raisin bii muy lekk dañ ko posone wala xamu ko bu fekkee xamu ko woon maanaam loolu kon xawlun sarix ne moom xamutoon xaybu xamul dara ci li a xew bu fekkee ne xamoon na ne lii ñu ko jox nii poson la waaw ah, léegi mu xam ko kon lekk ko faatu ndax loolu kon du at duñu at nit ki ne dafa xaru bu fekkee ne xamoon na ne poson la Euh, bu fekkee ne it euh, maanaam mm, dañuy wax ne ñoom ñoo doon yonantu yonantu alayhi salaam ci lépp yonantu alayhi salaam am na bis ñu posone aw bay jox ko mais bi mu yëkkatee tib bi nee nañu gàtt bi ak niñ ko toggee ak noonu mu safee ak jimboo xorom ak yépp gàtt bi dafa wax ne dañ ko posone waaw kii moom lu tax ko moo doon yonantu bi mooy imam maasum nisbati li chia léegi lan moo tax refin bi waxu ko dañ maa posone lu tax raisin bi wax ko loolu xanaa raisin bi bàyyi ko mu lekk ko maasum nga xam ne mooy ki taawu diine ji war a génne nit ñi ci ak lëndam dugal leen ci ak leer mooy ki ñëpp ki nga xam ne ñëpp ci moom la ñu war a dellu moo nekkoon imaam imaam ci jamonoom nga xam ne ñëpp ci moom la war a dellu léegi nag ñu tookee ko ni almuhim loolu wax yu bëree ci ñëw ak la nga xam ne moom la ñuy wax san ca maasum beneen maasum ba bu njëkk ba muy maxsuumu ñaareel ba muy Xasan ibnu Ali moom it euh, maanaam loolu day wane nekkoon kon xamuñu woon a xaybu wa illaa boog ñu ne xam nañ na dañ leen a tooke ñu tay tooke gi lekk ko léegi léegi mbokk yi foofu la Aliyu Ridda génne àdduna même alfadlu euh, ibnu Sahl moom itamit ci yoon boobu la deewee parce que moom itamit dafa am maanaam euh, balbala bu amoon ndax maanaam nit ñi dañoo commencé woon di wax naan ha ah, kii de moom maa moo jàmbaar kii de bu taxutoon ak moom ma moom du jot si nguur gi hii kii de moom mooy jàmbaar mbokk yi xool leen colonel yi jiite woon guerre bi demoon Bagdad ba duma al amin ba rey ko colonel yooyu yëpp euh, Maamun daf leen a rey waaxidan tilwal axar bàyyiwul kenn alfadlu mi ngi nii di waaj a dee Harsama dañ ci ñëw rey nañ ko Tahir na noonu te ñetti colonel yi ñoo jiite woon guerre bi ànd ak soldaar yi demoon Bagdad ba rey al amin jël nguur ji ne boroom xam-xam yi dañuy wax ne dañoo dafa mel ni dafa mel ni dañoo jël nguur gi def ko ci euh, palaat bu set taawu ko jébbal ko al mamun mbokk yi ku ne defal teraanga boobu waaye ñoom ñëpp la buur bi mujj rey léegi al fadlu niñ ko reyee nee nañu dañ ko euh, maanaam euh, mamun daf ko boole ñeenti nit ñu fekk ko ci toilette bi moom ci toilette lañ ko fekk sot sotoo ko foofu jam ko maanaam ray ko foofu ba noonu la deewee léegi nag foofu tamit nafsu say li xewoon ci Aliyu Rida moo ci xewaat ndax foofu dañuy wax ne ma Mamun diglewu ko ndax day firndeel loolu mooy ñeenti nit ñooñu ray ko bi ñu paree ma Mamun daf leen a rey ñoom ñëpp daal di dagg seen bopp boole ko leetar yónnee ko rakku alfadlu Xasan ibnu Sahl moo nekk fële ca Iraq manam mom timit moy rakku ki la waye mom si te du ko lal manam mom dafa manona xex xeex ba noppi jiite soldat yu bëree bëri iraq googu yep basaro ko fa tundu wo yep moko ko jiite nak magam ji mi ngi nii ray nañ ko ba noppi ñu euh Mamoun pour manam mu mu tel ko wax ne ko ha ah, du man de man kay moom sama nga ñi neeku ci laal taxte wu ma ci de ñu ne pour mu wax rak ji lolu pour bañ rak ji fippu ndax rakk ji bu fippoo eh, ca eh, Iraq waa kër Ali ibn Talib yëpp ànd ak moom kon moom benn lañ lay def Baxdaad def ko Xorasaan mu jeex ñu ne loolu lay bañ moo tax dafa dafa raylu alfadlu ibnu Sahl ba noppi ñaka ray mu wëlbati ko ray leen dagg seeni bopp boole koog leetar yónnee ko Iraq ca alxasan mi nga xam ne mooy rakk ji ne ko maa ngi lay jaale maa ngi lay masawu dama àndoon ak sa mag jëm Baxdaad ko moom moo jiite police yi ma ànd ak moom pour mu bokk ci ñi may aar waaye gis nga bi ñu ñëwee ba ci yoon bi ay sàmba booy kar ko daal di koy bett ray ko kon maa ngi lay jaale di la masawu waaye nag bégal na sa rongañ fer gis nga ñi leen rey ñi ngi nii seen bopp yaa ngi nii ñii ñoo leen rey fayul naa la sa dereetu mag gi niinul de fayul naa la mi ngi nii rey naa leen ñoom ñëpp léegi nag ñu ne ah Xasan nag xolam daal di sedd mu continuer nag di ànd ak Mamoun waaye mbokk yi loolu mën na nekk politique de man fii moom li ma yaakaar li ma yaakaar mooy Mamoun moo jëf jëf ji maanaam moo rey kële ba noppi rey ñii ndax alfadlu mii am na fu mu doon jëmee boobu bu ngeen moytuwutoon mu foqati nguur gi ndax fi mu jaar yëpp maanaam mujjoon na siiw ñëpp xam ko ku nekk naan yi jàmbaar ku dajeeg moom mu duma la ku dajeeg moom ci xeex mu duma la ba noppi moom faris yi la encore jël rakkam teg ko iraq mu commencé am doole léegi nag loolu mën naa tax moom jëlee ko fi de allahuma kon moom deeyam noonu la amee keneen ki ci topp beneen colonel bi ci topp muy Harsama ibnu Ayan mii nga xam ne moom tamit ci chef yu mag yi la bokkoon mbokk yi gis ngeen Aba Soraya mi ñëwoon démb ki nga xam ne moo ko rey nga xam ne moo defoon pexe mbaa raylu ko mooy Harisama mii Harisama mii tamit euh, kii daf koo mujj rey ci ci kanamam moom lañ ko ma Maamun daf koo mujj rey lu tax mu rey ko daa am ñoo xam ne dañoo dem ca Maamun ne ko yow de na nga xam ne euh, Harisama maanaam nit ñu bari bu ñu deewee lu ëpp fukki ne nit mbokk yi dee nañu ci génn bi nga xam ne Abu Suraya génnoon na ko moo Taba Taba nit ñu bëree bëri ñu ray leen ci nguuru euh, al-Ma'mun léegi nag ñu ne Harzama Harzama mi maanaam moo yoxal Aba Suraya parce que ci booyam yi la bokkoon ñu ne moo ko yoxal bàyyi ko muy rey nit ñi parce que di maanaam te même bi mu demee Kuufa jékki-jékki gu ray ko moo ko bàyyi mu daw xam nga wax naa leen Harzama bi mu demee ba cercle kuufa kii moom euh, Abu Suraya dafa poccax di ko daw léegi nag ñu wax ma amoon ne ko maanaam wërtoon a mën a daw daw gi mu daw xar sama moo ko yoxal te xar sama mii maanaam daal jaxase ko ak ma amoon ba léegi noonu la ko ma amoon wooloo ba mu ñëw mu boole ko ak i soldaar ñu jàpp ko moom ci kanamam jamate ko ay paaka ba mu tëdd mu jël ko dugal ko ci kaso bi mu nekkee ci kaso bi nee nañu la ko yónnee keneen ñu ray ko kon moom tamit noonu la deewee mbokk yi léegi nag ñu dugg ci fitna bokk na ci fitna ji gën a mag ñu am ci jamono Abdullahi al-Ma'mun di juróom-ñaareelu xalifa bi te ci lañ nekk ni mooy fitna gi fitnatu euh, xalqil quraan ndax al quraan maxluux la wala kalaamullah mbokk yi fitna bi fitna gënu ko rëy ci nguuru ma'mun alquran ndax mbindeef la walla du mbindeef fitna bu rëy rëy la bu amoon ci nguuram boroom xam-xam yu bëree bari seen ndëggu rëcc si ñu duma ci ñu bëree bari ray ci ay boroomi xam-xam yu bëree bari tëj ci ñu bëree bari ndax lan alquran maxluux la wala kàllaamullah léegi nag li waral loolu mbokk yi la waral loolu mamun xam ngeen xam ngeen ne dafa euh, am dafa euh, jeexantalu woon lool ci moctasila yi ba nee nañu am na benn bis kilifa ci moctasila yi ne ko boobu falowagul na mu ne ko mamun man de am naa mbébét goo xam ne am naa bis yàlla sottal ko jaarale ko ci yow mu ne ko lan la mu ne ko maanaam fikkara moctasila ñu dem ba mu nekk Euh, mu nekk constitution boo xam ne moom la sa nguur ga di àtte woo maanaam ñu dem ba euh, maanaam ñun mu'tasila yi sunu xalaat mooy dox ci sa nguur gi nee nañu loolu bi mu yàgg na te et puis même mu'tasila yi euh, maanaam ñoom nag seen xam dafa bëri nee nañu bokkoon na ci kàngam yu mag bi mu amul nekkee xale ñu leen doon jàngal di leen di yaral jubbanteeg yooyu ñu ne loolu nag dafa am tasir bu mag a mag a mag ci nguuru ki nga xam ne mooy almamun léegi nag benn bis mu ilzam ñëpp ñëpp ne alquran mbindeef la dañ koo bind du waxi yàlla daal di bind leetar yónnee ca Baghdad Ishaq ibnu Ibrahim ma nekk waali ca Baghdad ne ko dama bëgg nga il bind leetar ci gox yëpp fu ngóoram nekk bu bind fa leetar yónnee nañ ñëpp oo ñëpp par la force doolee mbaam pour ñu ñëw ne alquran mbindeef la léegi nag mu bind leetar jox ko isxaqa ne ko damaa bëgg leetar bi nga woo fuqahaa yi ak muhaddisiin yi kàngam yi kilifa yi ñëpp nañu ñëw toog nga wax leen ne loolu bis ni tey moom na gouvernement bi tëral dawla bi bis ni tey lii lay attewoo lii moo ci nekk képp koo xam ne nanguwoo ko gëmoo ko nag buur dina jàmmaarloo ak yow leetar bii jàng ko ci kanam ñëpp bu ko kenn manki te it ñëpp nañ ko sédé nak na ñëpp nangu ne lolo am na ñëpp deugal saxal ci seen làmmiñu bop ñu wax ne alquran makhluq la nako ko ñëpp nangu ku ko nanguwul ben alal jing nga daan jox dagg ko bu fekke ab atté la woon folli ko bu fekke ku newoon ci jakk yi la di def waxtaan téré ko ko bu amon teranga jël ko moy té lolu moy lu gëna maanaam man mansib bu mu amoon foqartil yëpp ba noppi nag duma ko bu ca doyul nga tëj ko maanaam état par étape bu fekkee nanguwoo loolu maanaam dañ jël sa alal yëpp bu fekkee ba léegi yaa ngi continuer di bañ boo doon àtteeg nangam lépp ñu jëlee la fa ba léegi bu fekkee yaa ngi continuer di bañ ñu tëj la booy continuer di bañ ñu duma la ba yegg ci rey mbokk yi loolu nag bi mu amee Isxaaqa daal di oote oo kàngam yi borom xam-xam yi kilifa yëpp ba Yaxya ibnu Ma'in ci la bokk imaam Ahmad ci la bokk euh, imaam Saad ci la bokk Abu Muslim maanaam kàngam borom xam-xam yi ne woon ci jamono foofu yëpp ñëpp ci lañ bokk ñu ooleen jàngal leen leetar bi nga xam ne moom la Ma'mun wax ba noppi nag Ma'mun daf cee dogu ne par la force lii moom day am euh, am boroom xam-xam yoo xam ne ni uyu nañu d'accord nañu am ñeneen ñoo xam ne nag dañoo bañ léegi nag kenn ku ci nekk li nga tontu Isxaaq bindu ko daal di koy ma yónneewaat ma Maamun daal di bindaat leetar tontu leen maanaam il faut maanaam boo nanguwul Maamun bindaat leetar yónneewaat leen ndax ci biir tontu yi daa am ñoo xam ne maanaam dañ doo def tawriya ndax Euh, bi ñu am na ñoo xam bi ñu leen laajee dañu ne d'accord nañu léegi nag bi ñu demaatee génn ba sa koñ ba ñu ne ah, ñun lu liñ ci jublu mooy yàlla nee na kenn ci yéen bu weddee te fekk dañ koo forcer garaawul na fekk rek xolom mi ngi sax ci ngëm yàlla illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman léegi nag am na ñoo xam ne foofu lañ def tawriya léegi loolu tamit muy senn di senn ba ñu bindaat leetar yónnee ko ma amoon ne ko haa gaa yi jot a nangu maanaam dafa am aaya bu ñu layoo de ma amoon daal di wax ne léegi euh, ñooñu ñépp maanaam dajale leen ñépp ngeen teg leen ci loxo soldaar yi pour ñu indil ma leen fii mbokk yi bokk la ci ñi nangu woon Yaxya ibnu Maïn xam ngeen Yaxya ibnu Maïn kàngam bi mu doon waaye nag mujj na ko tuub de mujj na tuub ba ñépp xam ko mujj na it wax ne képp koo xam ne nee na alquran maxluux la nee na euh, fa anta kafirun ku wax loolu ab yéeféer la mujj na ko ala nan ñëpp di ko dégg waaye balaa loolu bokk na ci ñi nangu woon ne ba loolu sax imam ahmad mere woon na ko ci mere goo xam ne la day taali léegi nag bi nga xam ne ñii nangu nañu am nañu nangu am nañu bañ am na ci borom xam-xam yi ñoo xam maanaam dañoo bañoon waaye biñ leen tëjee ñii benn fan la ñu am ci kaso bi nangu ñii am ñaari fan nangu ñu commencé di duma borom xam-xam yu bëree bëri euh, loolu nag tasaaroo foofu fépp buur bi nee na bu kenn waxati alquran waxi yàlla la waaye alquran dañ koo bind ba noppi rek ñu def ci débat yu dul jeex maanaam débat yu bëree bari ma amoon organiser na ko ci loolu ndax bokk na ci li ñu wax ñu ne alquran shayu la te yàlla nee na asiya yépp moo leen bind ñu ne alquran sayu la kon alquran mbindeef la ci mbindeefi yàlla yi la bokk ñu ne alquran du waxu du maanaam mbindeef la waaye du waxu borom bi euh, du ñu dugg ci maanaam addila yi mu'tasila yi indi te euh, ki ko jiite di maamoon di buur bi ndax mbokk yi xalaat bu mënee dugg ci dawla dafa fekk mu ànd ak buur waaye xool leen alquran ni ko yàlla sàmmee mbokk yi dawlatul abbas yi ak doole gi amoon nga xam ne jamono boobu maanaam diiney lislaam ñoom ñoo ko téye maanaam bu fekkoon ne diiney lislaam nekkul lu yàlla aar luñ ca bëgg a dugal konoon ñu dugal ko ci moo tax day am ñuy wax naan xaddis yi dañ cee dugal lu nekk lii dañ ko sensé abadan Haruna Rashid am na benn waay boo xam ne dafay ñëwoon ci jamonoom euh, di sos benn xaddis Haaruna Rasiid na nañ ko rey mu wax Haaruna Rasiid ne ko yow defal nànk xe ñeenti junne xaddiis yu yu amul sas naa ko ñii ne dafa ne ñaari junne xaddiis sas naa ko te mi ngi ci biir xaddiis yi Haaruna Rasiid ne ko cim gis nga xaddiis yooyu boroom xam-xam yaa ngi nii dañ ko seppi benn par benn comme ni ñuy seppee weñ bu daanu ci biir soow Haaruna Rasiid na ko loolu du la muccal de mu ne kon li nga sos ci xadis na nekk milliard mu ne ko cim boroom xam-xam yi dañ ko seppi benn par benn comme ni ñu seppee weñ wu daanu ci soow mbokk yi loolu day wane garanti bu yàlla garanti diine ji moo tax xool leen jamono dawlatul abbasiya maanaam xalaat bi Maamun nga xam ne buur moo taxaw ilzam ko umma bi par la force doolee mbaam ànd ak loolu borom bi jàpp ci dogalu ko pour mu jàll moo tax diine ji nii mu ñëwee noonu la ko borom bi tabaraka wa taala bëggee naka bu fekkoon ne manam xalaat boobu sax na ñu bind ko ci téere yi na léegi lii moo am alquran mbindeef la waaw loolu maanaam diine ji benn buur benn buur amul kàttanu def ci loo xamante ne bii borom bi tabaraka taala defu ko ci abadan diine ji yalla maanaam umma bi yëpp la ko jox ñun ci lañ bokk te bu fekkoon ne dañ koo sensé mais kon ñun am nañ lay kon kay dañuy wax ne yàlla ñun moom bëgguñu de diine ji kay téel parce que diine ji ñu jox dañ koo sensé te kon dañu am lay ëllëg mais diine ji yàlla dina ko protéger ba mu yegg ci ñi bëgg mu yegg ci ñoom maanaam yow diine di nga jot kenn sensé wu ko parce que bu ñu ko sensé kon kay yow jotoo diine kon benn yonantu ñëwul ci yow te yàlla dafa garanté diine ji nga xam ne même ñooy juddu milliards yi at ci ginnaaw yàlla nee na man duma leen mbugal lu dul damaa yónni ci yéen ab yonant waaye yow diine ji nga jot bu fekkoon ne diine jii nii maanaam buur yi comme ni ko ñenn ñi di waxee dugal nañ ci lu ci bokkul kon kay ëllëg da ngay am lay ci kanam yàlla moo tax yàlla tamit pour mu ma mu am lay ci kanam nit ñi diine jaa ngi nii diine jooju faw yàlla daf koy garanté mu sell mucc ayib ba tegu ci loxo nit ñi après na ku sàggan nag yaa xam mais diine ji moom sell na yàlla garanté na ko ba mu agsi yow Maamun jéemoon na lu ne lu ne sottiwul ba mu fa jógee Mu'tasim ñëw na joggati affaire bi moom jël drapeau bi ndaxte moom dem na ba wax ne nañu nañu tas sëy képp ku gëmul ne alquran mbindeef la nañ maanaam bu ko jabar gëmee jëkkër gëmu ko nañ ko tas nañ tas sëy bu ko jëkkër gëmee jabar gëmu ko nañ tas sëy moom yeggoon na foofu maanaam passé woon na rey moom na sëy nañ ko tas maanaam ñaar ñaar ñuy sëy ñoom ñaar ñëpp dañ ko war a gëm bu ci kenn gëmul rek xaraam na ñuy sëyeeti ci seen diggante mais ànd ak loolu yëpp mbokk yi yàlla sàmm seppi na xalaat boobu mu'tasila yi amoon seppi na ko sànni ko fële buur ak dooleem taxaw na te du benn buur ñetti buur ñett ñett ma amoon jéem na ba dee sottiwul Maamun keroog bi muy dee dafa ne mu'tasim lii laa lay dénk continuer ci sama xalaat bii ma nekkoon alquran mbindeef la moo atasim dund na ba dee sottiwul alwaafix ñëw dund ba dee sottiwul ñetti buur bëgg a def ci diine ji lu ci bokkul yàlla ne ma lànk maa bañ diine ji loolu du ci dugg loolu day wane sell bu diine yi bu diine ji sell ak garante bu ko yàlla garanté mbokk yi fii la teg sunu loxo